Madayas, Madayas Saloon, Madayas Madayas salon ci bir Gambia Madayas mi nga xamne dafa xam lu bax bëgg lu bax tay di def lu bax lepp lo xamne bëgg nga ko si sa kanam lepp lo xamne bëgg nga ko si biwuti lepp lo xamne nam nga ko si sa Madayas dal mo la koy jox dama ne salon ni bari neen bir Gambia waye it ñu façon tay it mëna bokk façon bi Madayas salon ci Kayrava Avenue opposite Alien Franco fofu lañu nekk Madayas si corridor bi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 231 764321 Maada Yes daal moo nekk place jongama yi jox ma sa kanam ma defalal la ko baax